ci kër gi njàmbat lu bari li ci kër gi ak wax ju bari ji ci kër gi sonal borom kër gi waaye nag terewul ma ni leen du kenn ku dul man la lépp nag ci ndimbalul yàlla mi nga xamante ni saa su ne moo ñu may kattan ñuy teew di ànd ak yéen ci biir seen émission kër gi euh, sant ko moom buur bi yàlla bu baax a baax euh, julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur bu wér a wér gërëm sunu wasila gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun dore ko ci maladie di ci hôpitaux yeeg ñi seen i ñaanal leen yàlla fëgg bopp yi ñi jiitu ji yàlla yërëm leen te xare leen àjjana kilifa diine yi yàlla yàggal leen sunu kanam kilifa ada itam la ñuy xaar ci ñoom ñu mën koo matale naka noonu nuyu sargal képp koo xamante ni rek yaa ngi toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan rek ci at mi ñu génn lépp loo xamante ni ñaanal nañu leen ko yàlla na leen dal te mu doon seen jiglaay tey nuyoo bi dama ko gaawal parce que dama ànd ak ñaar ñoo xamante ni yàgg naa ak ñoom yàgg liggéey ak ñoom yàgg nekk ci anam boo xamante ne anam bu mu gën a rafete la dama leen di wax ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk waaye terewul saa su nekk dañuy àndaat ndokk yàlla bi nga xamante ne nag dara mësul xew sunu diggante kenn ku ci nekk bu sa moroom ñëwee cuubu surtout man maa fi gën a gaaw yeewu rek cuubu soppi doxalin waaye bu ma ñëwee rek kenn ku ci nekk da nga dew dem ci la nga nekk ba yàlla indiwaat atmosphère bu jàmm su ko defee ñu daal di cay ànd nekkaat kon jaadu na bu ma dee def kër gi fekk si leen fi am fi 5 ans waaye ñoom itam ñu am lu luñ ma fi jiitoo jaadu na itam ma dalal leen ci sama émission ñu bokk ak ñoom ma bokk ak ñoom li nga xamante ni mooy émission femme africaine moderne ñu doon ñoo xamante ni daal dalal nañ ma ca te it ba suñu jën yàlla tey ci ambiance la ñuy nekkee ci tooñante ak kaf ak ree li may def mooy rek ci biir anniversaire bi la ñu nekk. téléphone yi démb amoon na ay gitangaas waaye tey jii tubaarkàlla macha allah yàlla na ci yàlla lafal cat waaye nag bala ñu cee sori rek ngeen di ànd ak Eva Tra wala Daba Soumaré ci woote yi dañu leen di bàyyi ñu nuyoo ak mbokk yi nga xamante ni ñoo toog di ñu seetaan su ko defee rek ñu dellu si waat àndaat ak yéen soxna Daba moom lay jox kàddu gi ndax mooy sunu kilifa. daba nuyoo ak mbokk yi nga xamante ni ñoo ñu seetaan. Thiam dañuy wax rek joyeux anniversaire. merci beaucoup di di di di nangu sag gi mhm. parce que tamit euh, walaay mënoon nga koo sàjji caam teg fee ndax nit mag magee na nit lenn sax te du ko nangul mhm. lenn mhm. boo déggee du ko nangul du ci âge ba mais ci cër gam koy jox dëgg la euh, dëgg la naam ñoo ngi fii ci kër gi nee nga ba ñu làmmiñu dëkk dañuy laale sax xëy dellu si waat àndaat yàlla lafal ñu cat boobu ba léegi te yàlla na ko yàlla dolli amiin amiin xal ko ci biir kër gi kenn dikkagul nii la ma mbayang caam def la kenn dikkagul nii la dikkagul ci yéen it mm. ngeen ni Daba Soumaré na def kon alhamdulilahi rabbil alamin sant mm-hmm. yàlla mm-hmm. ngeen di rakk yu neex a rakkoo dëgg la surtout Eva mi la fi jiitu dëgg la waaye nag gannaaw bés bi tey sa bés a ci yow la mm-hmm. wax ba jóg te ko ci brosé dëgg la ci sax ñoo bokk liggéey bi dëgg la dëgg la te mel na ni anniversaire u soxna Mbayang anniversaire u Daba Soumaré la dëgg la anniversaire u soxna Mbayang anniversaire u ñun ñëpp ñoo ko bokk rawatina nag muy anniversaire u kër gi dëgg la ah yaakaar nag gâteau bi léegi mu egg si xanaa. waaw boobaak léegi ñu ngi wax gâteau ñëwagul mais xam naa ni gaa yu baax yi. <laughs> Euh. dinañ indi gâteau am na ñoo xam te nag dañ ko préféré def weccit te xam nga man weccit laay bañ a gis ak bët dama koy daal di def ci pochette bi na leen tàyyi naa jënd gâteau mais en tout cas li ñu leen di defal kado rek mooy lépp loo xamante ni bëgg nañ ko xam euh. Euh, ci soxna Mbaye ñu dégtal leen ko lépp loo xamante ni itam envisagé nañu ko ëllëg ci kër gi lépp ñu ànd ci ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan waaye soxna Eva rakki jàmbur mm-hmm. ñu ngi lay nuyu di la sargal di la dalal ci kër gi parce que kii remplacé na ma bi ma jëlee congé ci kër gi waaye yow itam dalal naa la ci kër gi nga defoon ci liggéey bu am solo élément bu am solo dama lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ne samay mag lañ da ngeen baax ci man ba bu ngeen gisee lu neex ne Eva jiitul bu lu safaanu amee ngeen ne Eva desal ca gannaaw ndax gone nga ñun ñooy dem loolu maa ngi leen ci sant di leen gërëm di gërëm itam kilifa yi ci kër gi ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne waaye itam di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan Euh, di rafet lu émission yëpp. ndax damay wax souvent ne télé. émission boo ci gis rek am na ñu ko bëgg. émission boo ci gis am na koo xam ne mooy tax mu bàyyi la mu doon def. ñoo toog di ko seetaan dëgg la. Euh, télé di institution. Mhm. institution bii ñu doon nag ñun yàlla def ñun ñëpp ci jàmm la nekk. Mhm. koo fi waxal ne yow la gën a bëgg. dëgg la keneen ka bu toogee nag diw man la gën a bëgg. dëgg la di ñaan yàlla loolu yàgg suñu diggante. di ñaanal itam téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. dëgg mbayang moo bëgg Eva mhm. ki bëgg Eva moo bëgg Daba dëgg la ki bëgg Daba moo bëgg Karine et puis ainsi de suite la kon yëf bi xëy na télé bi la mhm. télé bee nu boole mhm. yàlla na jàmm yàgg amiin amiin teraanga am ndax ànd gën a neex amiin amiin amiin <laughs> Soumaré euh, amiin euh, <laughs> kontaan naa bu baax a baax ci ni ngeen bàyyee seen yitte ak yëpp ñëw euh, ci anniversaire bi parce que damay wax ne rek yëkk rek moo am solo doomu aadama bi mën nga ko defal àddina ak li ci biiram boo ko noppee yëg rek mu gis boppam te nag ndokk ngeen doxal sama diggante ak yéen ndax euh, ñëw fekk si leen ngeen euh, tegal ma ay ndëgg sërëx mën naa yomb donte nag at ma ma juddoo sax daf jot judduwu ci yaa wax li waaw at ma ma juddoo daf juddoo mu ko ci këru àddina te bu ngeen ma tegalee ndëgg sërëx ku yàgg ci loxo nu ñu la téye nga xam dama koy teggi wiire ko ba pare dugal leen ca biir ci ah, ci kàttanu yàlla waaye nag ndokk yàlla bi nga xamante ni wax dëgg yàlla boobaak la mm-hmm. ah. bi dëgg la mm-hmm. relation collégiale yu la ñu am di ñaan yàlla yàlla saxal ko mm-hmm. mbayang itam dafay bés boo xam ne nee nañu anniversaire sa bésu anniversaire u émission lu sunu yëfa damay faral di dégg ñuy woy naan fan yu dellu si moo neex fan yu dellu si dana neex ci borom bu dee ne lebal na nit ñi lu baax dëgg la ndax boo toogee ba ñu lay woyal ne fan yu dellu si moo neex mhm. dafa fekk voisinage bi relation yooyu nga defar ko ba mu rafet dëgg la nga def ko ci ñun def ko ci ñu ñuy seetaan te kenn du ma weddi dëgg la ndax euh, boo toogee di def émission mhm. dama daan toog ma ni ndeysaan nit dana sonn te kenn du ko yëg ndax day nekk ci coono nit ñi di ko dox mooy wàlli médecin médecin dana fajaate ba bés bu ñëwee ci hôpital ba ne may may leen ma ma tëdd dama feebar kenn du ko nangu dañuy fàtte ne moom nit la day feebar muy sa kaa di kaawu daba di sunu kaa yàlla nattoonu ko waaye nattu bànneex lan koy mm-hmm. def ndax ngay wax tax jigéen mën a soppeeku mhm. ñi mel ni Eva dëngoon ne ah soxna Mbayang waxoon na nàngam nanu soppi suñu doxalin mhm. nanu xool nu mu gën a rafetee mhm. ndokk yàlla sax ba nu tolloo ci jamono boo xam ne kenn matu la bon ñëpp bëgg baax am na ko nekk ci ligne bi damay bàyyi dama leen di bàyyi ngeen jël ko soxna dama yaay jël droit denes waa aywa euh, bismillah waaleykum salaam sang bi yal na yàlla dolli ziar noo tudd ak fooy woote yaay la mag la la. ndeysaan Sénégal. Mhm. allo allo. oh là dagg euh, na. la mu la mu wax <laughs> rafet na xeex la moo am solo. allo dafa am keneen ku dellu si waat Eva wol kooku. allo. waaw aywa bisimilah. moo d' accord quoi man mhm. su ma bopp ñu bëri ko. Mm-hmm. dañuy dajaloo wax loo xam ne nekkul ci ñoom buñ génnee jëfee leneen. Mm-hmm. li ñu wax ne eh, donc nit ki da ngay toog ak moom waxtaan après mu nga yaakaar ne sa xarit la fekk sa noonu la. dëgg la wala mu génn waxee leneen wala leneen mais man vraiment mosuma gis mbaay xaw ma këram xaw ma fu mu dëkk mm-hmm. xaw ma la ma ko dara. dëgg la yar laa ko xamee fekkin laa ko xamee. wóolu naa ko def yaay. wóolu naa ko def yaay wóolu naa mag wóolu naa ko dénk sama kër. parce que gis nañ loolu ci télé ci télé bi nga gis loolu mën a wax loolu ci moom te àdduna bi yëpp li mu wax lañ mën a wax ci kenn xam nga keroog maa ngi muy am comme di wax ci affaire ba mu ñàkk mu ne ko man sama anniversaire tey lañ ma ne ma tey la. Mhm. xam kon boobu bu wutale ak ñu bëri xam ne avant seen anniversaire di ñëw un mois. Mhm. dañ nekk njëkk di xam amul benn sens. dëgg la jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sama sëriñ yi rafet na man aw ma seen fay wax naa leen ne bu may sonn léeg-léeg mu metti lool mu tar lool ma ne bu ma xëyee dinaa banque loxo yi toog ci kër gi su ma xalaatee nit ñi may woo rek damay daal di amaat courage mm-hmm. dellu siwaat euh, ci li nga xamante ni moom laa nekk mm-hmm. mais de toutes rek maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen wax ne rek mm-hmm. ak lu mën a xew rek nañu yëg ne ñu ngi ci biir xolu soxna Mbayang indi waaye soxna Daba yow da nga jaaroon ci kër gi mhm. am na élément yoo xamante ni bëgg naa maane jàllaleel ñu ko mhm. parce que côté boobu benn anecdote rek balaa maane di la jàllaleel mhm. ba mu ko defee de tuuti bopp bi ëlbatiku <laughs> ne ma Eva eh, ndekete mbay ak lii lay daj nañu wuyu ki chaque suba mu ne ma kaay jël sa kër gi <laughs> mbokk allo <laughs> allo allo allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam dama bëggoon dugg ci émission kër gi. macha <laughs> sa bos la. allo allo. voilà xam naa dagg na. dina ñëwaat ñu xaarandi ko waat. Euh, ma ne le temps mu kaleel ñu élément bi. chaque suba daba ooma. waaw soxna Mbaye sa congé ma ne ko waa man mois la ak deux mois la am congé. ne ma sama bopp bi sama nopp bi day riir damay tiit yi may dégg damay jooy ma ne ko doo mbay ak gis nga kooku ma gis nga euh, Eva kër gi. waaw léeg ma wàcc. Mhm. sama saal laay tëdd. Mhm. midi ba ñu. bu julli jotee ma nañu wuyu ko ci xam naa lépp merci beaucoup jëla kooku ci aywa bisimilah salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan ci sa wootee jërëjëf di nuyu ñëpp di nuyu sama tata boobu mi ngi lay fay euh, man doomu Aïssatou Koulibaly laa oh là là en fait <laughs> dama bëgg dama kontaan en fait ci ngeen toogee nii parce que raa te nit ñi di liggéey ci benn place bi déggoo nii mhm. te je sais c'est sincère en vous parce que ni ngeen di waxee ci seen xol lay jógee man je vous félicite sincèrement di leen ñaanal yàlla yàlla gën a yokk ànd bi gën a yàgg amiin amiin kontaan tamit ci ngeen solo parce que da ngeen a yiw en fait kontaan nañu ni ma kontaane ba woo leen. Euh, yal na yàlla def ngeen kontaane. amiin amiin merci beaucoup leen di nuyu di leen gërëm di leen merci tur bi naka la. man Bambi laa tudd. Bambi rafet tur. <laughs> kontaan nañu kontaan nañu. vraiment joyeux anniversaire encore à l'émission. merci beaucoup merci beaucoup. man sama caat boobu gëj naa koo gis kon. Bambi vraiment